dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi nees ko waxee woon ci ndoxteel yi ñaari doomu aadama yu ñàkk seen bakkan fukk ak ñett yu ami gaañu gaañu yu métti mu tukkee nag ci accident bi am démb ci euh, guddi ci boori croisement bu euh, Nakara euh, soriwul nag tali bi dox Linguère ak maatam benn camion bu ndaw daal lañu ne moo wàcc yoonam laata muy këpp moo indi nag jëya jooje sapeur pompier nag ba ñu leen wooloo daal ñu bàyyi ko ca Linguère danoo gaawtu yegg si ñi nga xamante ne ñoo ca jëlee sax ay gaañu gaañu raw rawale nañu leen euh, ca kër docteur boobu di màgget Lo nekk ca euh, Linguère euh, ñuy fàttali rek ne kon camion bu ndaw boobu ma nga bàyyeekoo woon ca Linguère nag yaboon yi commerçant ak i bagage fas yéene woon rek dem ci ab luuma muy luuma bu Nakara nekk nag ca commune bu Vélingara ca Ferlo département bu Ranérou ubbi nañu nag ab enquête ngir xam dëgg-dëgg lu sabab ba wépp accident ñu yegg si nag euh, ci mbas meek euh, tey tolluwaay bi ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ni ki démb euh, ci mbas mi le nag ci test yi ñu def mu toll ci junni ak juróom-ñaar téeméer ñaar téeméer yaak juróom fukk yaak juróom-ñaar danoo dikk ak jàngoro ji ñeen fukk ak ñaar nag feebar nañu ba nekk ca réanimation juróom fukk ak ñeent nag jàpp leen ni ay jege lañu maanaam danoo jege ñi amee woon jàngoro ji juróom ñeen fukk ak ñett bokk ci wàllante googu ñu xamul ñu teewlu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 ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wàññi na fanweeri junni ak juróom-benn ak juróom ak ñaar fukk ak xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñaar ak ñaar ak fanweer ak ñett wér nañ si juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé et l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé et l'action sociale mu ngi leen xamal tamit bi campagne vaccination bi commencé ba léegi téeméeri junni ak juróom ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn nit jot nañu ñàkku Euh, ñu wax rek euh, ci ñàkk bi ñu duppee AstraZeneca fekk baax nag ca Britannique ak coow la ca juddu ba tax rek euh, kon réew yu bari ca tugal da ca rocceeku ba set wecc ndax njeexital yi ñu jàpp ni baaxul ci wàllug wér-gu-yaram mbootaay gi ngànk nag wér-gu-yaram googu ci àdduna wërngal këpp ma nga cay dalal xel yi lañu koy xel ñaar nag bu nañ ko ne teg ci suuf te xam ne nag amu ci teyit nag ko tàmbalee ñàkku nañu ko yeggali ci jamono yooju moom groupe AstraZeneca Euh, dafay wàññi euh, lu soxal nag ñàkk yi mu doon yóbbu ci réew yi euh, tugal yi tey ci assiette yi la ko xamle ndax dafa am ay jafe-jafe sax ci wàllug defar gi ñu dem nag ba fële nga xamante ne nii ay dëkk la féete ci diggante frontière bi ndox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau dëkk yooyu nag tey ñu ngi jànkonte lay jafe-jafe yu metti nee ñu bu weesoo làkku ga dëkk ya làkku tey ndox mu sell sax mënuñu caa jotee courant moom furaas ba tax na nag ña ngay wooteek wallu bëggee faju faaw rek euh, ñu jéggi dem ba Guinée Bissau ñu ne nag bu ñu leen mënoon dimbali tamit euh, ci wàllum njàng meek ak kii rek collège dana fa gën a baax ñuy sàkku euh, programme yi di Puma ak PUDC mën a yegg foofee Abdoulaye Diallo. ca frontière diggante Sénégal ak Guinée Bissau askan bi yeewoo ca tund wu Medina Alpha Sadou ñooy naqarlu jafe-jafe yi xajamal seeni dund. ndax yaa rien ici ñun amaguñu courant amaguñu forage amaguñu école. bu baax te nous on est des sénégalais on est des sénégalais ñu ngi fay suñu impôt ñu ngi ñu ngi voté am nañ suñu pièce d'identité on de des sénégalais ah comme ñu ngi def ah suñu rôle kon on doit nous euh, on doit nous retourner nos droits on a droit d'avoir de l'électricité on dañu am droit am euh, courant dañu am droit am forage dañu am droit suñu xale fu ñu jàng ñun jigéen ñoo gën a sonn ak yoon bi vraiment on déplore la situation dëkk bi am na yeneen dëkk yu ko daanaka fukki dëkk ak ak ñeent mën naa ci lim rek su weesoo Sinthiang Ama Sukel ay Mady Berek Holom euh, Sinthiang Fodé Saare Manson euh, Sinthiang Waali Daaru Samba Boggeel Samba Madina Manson waaye ñun fii nii ci dëkk bi am nañ jafe-jafe yu bari dëkk bi dama naan ci lëndam lay lay dund. ndax buñ ko sosee depuis 1933 ak léegi yàgg na waaye amuñ courant. dëkk bi également amul ndox mu sell parce que ndoxu teen la ñu naan. mu waral ñuy réclamer ay programme yu mel ni PUMA ak ci PUDC. woote nañu ñaan si nguur gi tu képp ki nga xam te ne mun nañu jàppale na def ngir yàlla ak yeneen jàppale te mu xam ne ñu xam ne nous on est des bëgg nañ nag ku ñu ci jàppale ñan ñooñ ci war a mën a jàppale moom mooy programme buñ ñu naan PUDC ak également programme PUMA. ñàkkum yoon yi baax ca seeni gox ba daa yokk seeni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu wergu yaram askan wi te mu waral it ñu bugg a am ab poste de santé ndaxte nee nañu seeni kër docteur bi fa nekk daanaka tur wi kese moo fa nekk. te case de santé bi dañ koy tuddee case de santé rek waaye tur rek a fa nekk. nit bu su matee jigéen su matee fii fu su fee su matee fii même visite Médina Elhadj la ñuy dem. su matee fii soit comment euh, dirais-je Médina Elhadj ou bien la plupart Kuntiima Guinée-Bissau la Guinée Bissau dëkk bi nga xamante ne réew bi nga xamante ne bokkuñu sax. bëgg nañu it am daaray diggu dëm ndax nombar gone bi bay jàng ci seeni tund wi bi le nombar gone wàññeeku ngir indi saafara ci seen yenn jafe-jafe seen benn waay dimbalante moo leen tabaxal ab juma. mangook ñi moom euh, taxaw nañu rek ngir euh, jàppale leen ci wàllum euh, xëy muy nag ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk kon ci àll bi jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu gàll wàllug mbay mi équipement rural moom moo ko xamle di programme boo xamante ni koppar nag yi ñu cay dugal toll na ci juróom-benn fukk milliards ak ñeent FIDA nag lëkkaloo ci ak Banque africaine de développement ñu teewlu Pape Malick Ndaw secretaire général la ca ministère bi ñu dénk wàllug mbay mi. ci micro seenu càmm. ay cérémonie bi nag lu am importance la si ñun pour le ministère mais aussi pour réew mi yëpp parce que projet bi nga xam ne dañ ci am ay partenaires yu am doole yi nga xam ne yàgg nañoo dimbali état du Sénégal muy FIDA ak BAD Banque africaine de développement jàppale ñu tëgg benn projet boo xam ne li ko tax a jóg mooy ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci gox gox gox xaan muy un projet de cinquante quatre milliards tey jii nag lii moo koy firnde danañ parafe léegi ay document wane na dana am loo xam ne noonu koy jàppale jeunes yi pour que li nga xam ne moo nekkoon seen mébét ñu ko ñu gis ko fan yi ñu jël gaal yi di dem wala di dem chômage xam ne lii projet bi dina ñëw jàppale leen suqal leen ma ngoog ñu wax rek ci wàllu courant beeg jafe-jafe yi nga xamante ni nii tey ji bay xool ay gox nag ci Sénégal ñu ngi jànkonteel ak moom maire yi nag di yàgg euh, woote muy nag njiital bokk moomeel yi euh, ci ñu dimbali leen bu baax a baax ci wàllu courant boobee yeggee nañu nag seen i jafe-jafe Demba bi tey moom mi nga xamante ni euh, moom moo jiite rek lu soxal wàllug Senelec direction général ba nag ne fukki milliards ak juróom-benn ci suñu koppar nag daanaka tëral nañu ko ba noppi lépp rek ngir fexe. ba dëkk dëkkaan ci àll bi mën a jote ci wàllu uh, courant lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk uh, ci dëkk la ñu wax Ibrahima Diamé la ñu ciy àndal ak Faly Gueye. fukk ak ñeenti maire yi am ci département bi te woon nañ ci ndaje bi daal di janook kii di directeur général bu Senelec ku nekk nag daal di doon avocat communam ngir ñu mën a li nga xam ne des na ci wàllu électrification ci gox xam. donc gis ngeen ne euh, courant pratiquement ñun ñi nga xam ne dañu nekk dañu def nekk ci àll bi en tout cas boo ñu indilee courant jarul campagne électorale sax nga ñëw fii parce que ñëpp xam nañ ne fi mu nekk nii euh, courant ku ko ñàkk en tout cas ñàkk nga ci li ñuy tuddee euh, pratiquement les services sociaux de base euh, donc courant dafa am importance ci dundi nu nit. ñoom maire yi nag daal dinañ génn ci ndaje bi la ak yaakaar bu mot sëkk ndax ki nga xam ni moom moo di directeur général bu rek di Papa Demba bi tey xamle na ni lu mat ñetti téeméeri dëkk daal dinañ leen brancher le courant ci lu yàggatul dara. def nañ fi presque deux cent quatre vingt di sept localités yoo xam ne presque seize milliards lañ dugal ci xaalis dafa jaadu woon nag ñu ñëw tey jii nii toog ak maire yi ne leen lii lañ def nan ngeen ko gisee lan moo si seen xalaat lan lañ si mun a gën a defar lan lañ si war a bàyyi lan lañ ci war a yokkute te dafa amoon importance si man mii nga xam ne maay directeur général ma déglul leen man sama bopp. et jàngat naa fi lu bëri. ci ay mbébétam nag fi lekk 2025 bokk na ci ay programme am kii di directeur général Pape Demba bi tey daal di def këru courant bi di Senelec li muy duppee entreprise de service public bu gën a ñoŋ ci programme yi ba tey bokk na yeesalaat lii di poto courant yi lépp lu nga xamante ni poto bant la ñu daal di koy remplacer ak poto béton. ñu des foofee ca diwaanu Kaolack wax ba tey ci wàllu courant beeg euh, compteur yi ñu nemmiku nag ni euh, daal ñàkk na fa ndax tey boo xoolee ay kër yu bari ñu ngi koy jooytu mënatunoo rek amuk branchement euh, ci Senelec li ko waral lan la njiital Senelec tontu na ci nee na nag loolee nañu jàpp rek ne ay jafe la yu tukkee ci mbas mi ndax tey boo xoolee agent yu bari ci senelek mbas mi daf leen laaloon kon tey ñu am joxti ni nag matuwaay yi nga xamante ne jëloon nañu ko ngir rek. ci wàlluk mbas mi tey xëy na yooyu yu bari bu nu ko yëkkatee dina tax jafe-jafe ba dañ Pape Demba bi tey euh, la ñuy teewlu. compteurs yi moom damay wax rek ne amuñ si woon problème bu tar lu ci nekkoon mooy comme nu ngeen ko xamee mbas mi tolloon na foo xam ne dëgg-dëgg Sénégal yëpp la atteindre woon y compris Sénélec parce que amoon nañ ci ay cas yu nga xam ne bëri woon na bëri boo xam ne mënatuma woon jël responsabilité. di exposer personnel bi noonu noonu par rapport ak feebar bi moo taxoon nag ay activités yu bëri yu nga xam ne dafa doon dajanteeg ñi nekk ci biti dañ leen suspendroon même boo xoolee personnel Senelec bi sax ba léegi presque cinquante pour cent personnel bi ñu ngi seen kër ndaxte dañu xool ne ñii buñ leen indee xaj na mbas bi di gën a wàññi mesure yooyu nag ñu jëloon yàlla dimbale ñu ba ñu jógee presque si juróom fukki cas ba léegi amatuñ benn cas donc loolu noonu aussi dañ koy sante yàlla et puis muy traduire aussi mesures yi ñu jël baax na léegi nag comme président levé na urgence sanitaire bi léegi nag ñun aussi dañ si sukkandiku yaakaar na fii ak boobu dinañ am temps pour mun a vacciner suñu personnel bi mais activité yëpp dinañ reprendre bu soobee yàlla képp ku nga xamante ne nii amoon na abonnement recensé nañ yëpp ñu ngi commencé déployer compteurs yi ci région yi et puis ku nekk def sa activité boo soxlaa compteur nga ñëw demander ko ñu jox la ko si nu nga ko bëggee. mën nga ko mu nekkoon njiital euh, Sénélec euh, gannaaw rek euh, manifester yi xam ngeen ni gisoon nañu lu bare bari artistes yi ku ci nekk nag di wane sa manin ak anam ba nga koy defee artistes yi bokk na ci ñi nga xamante ne nag ci wàlluk rek dessin ca la ñu fare mu doon loo xamante ne lu nu nemmeeku la bokk na ci ki nga xamante ne nag ab graphiste la ñu gën ko xam ci docta moom gis nañu sax ni mu ngi doon def nag liggéey bu am solo daanaka mu am ay barab yoo xamante ne daanaka ciblé woon ngir gën a fësal euh, li nga xamante ne ci lay liggéey may mën a jaay euh, Jafar Ba ñoo ko seeti woon. ci miir bi ñu fi seen ay image yu bari couleur yi itam naka noonu ay message yoo xam ni askan wi ñoo ko tax a jóg ci jamono bi nga xam ni ñii ñu ngi manifester la ko taamoo def. li am nii euh, daf neexul kenn te dafa naqari ci xol ay xale yu ndaw. yoo xam ne euh, mënoon nañu indi lu baari ci dund gi tey ñu daanu nañ ñooñu duñu leen fàtte ilaa yow mi diini te loolu da di yoon ñu wax ci man ni ma koy defee nii am na ñeneen ñu koy def yaa yaa ya ya y' a des jeunes graffeurs euh, le crew RBS ils ont fait un graphe euh, ñu ngi def benn graphe ci Parcelles Assainies ñu effacé ko te ay tubaab ñoo ko effacé pour lan pour lan nit ñi waratuñu wax leen xalaat nit ñi waratuñu wax seen point de vue maa ngi di ñu ko loolu du ñu ci liggéey bi nga xam ni amal na ko am na ay nit yoo xam ni daf leen a tànn ñu am loo xam ni dañ koy fësal seenu mer ak leneen. li ci am solo mooy ñun il faut que ñu wax li ñu metti te li ñu metti du fii rek lañ koy waxee parce que ni ma fi nekkee di ko def am na ñeneen ñoo xam ne euh, ils font partie de Doxandem Squad ou fait partie dans de d' autres coopérations de graffeurs ñu ngi ci ñu ngi Tamba ñu ngi Saint-Louis euh, ñu ngi Thiès ñu ngi Louga euh, ñoom ñëpp dañuy wax leen naqari ci dëkk bi li ñu gis li ñu dund fan yii. bëgguñu ko moo tax ñu ciy wax bëgguñu mu amati yaakaaroon nañ ne dix ans après duñu mës a dundaat lii. Docta nekku ci moom dong ndax kat fii ci Sénégal ay artistes yu bëri jug nañu ngir xeex nee nañu lu ko jar. da ngeen gis loxo bu yëkkati drapeau moo nag Sénégal lu mu metti metti bu ñu rayee ñun ñëpp dina am toujours ñu taxaw ñu yëkkati seen Sénégal ci kaw mu siggi te siggi bi day sax ba faw ngeen gis beneen nit bu sëgg dafa dafa dafa naqari ci xol c'est triste li ñuy dund ni ci Sénégal te yaakaaruñu woon nag ñu ñuy wax pays de Teranga yaakaaruñu woon dund lii mais dañ ciy jox suñu cër mais waxuñu kenn nag mu dox ci mbedd bi di toj yëfu jàmbur wala di jël yëfu jàmbur waxuñu ko kenn. bu fekkee sax liggéey bi ñuy def bari na bari na itam liñ ciy wax combat bi doon benn ndax kat nee nañu bëgg nañu réew mi jàmm am fi ak dal ci kaw démocratie. Maimouna Ndiaye cant ngërëm eh, ñeel na la eh, Chérif Diop nag ak Younous eh, Diatta seenub tukki bi ñu doon def ci bëj saalumu réew mi gannaaw Cap Skirring ak Jembereng fa ñu jeexalee nag île Égée la île la boo xamante ne île bu soppulu la ndax taaroom ci gàncax gi taaroom ci alam gi turist yi nag bari woon fa lool tànk waaye tey wàññeeku na ndax mbas mi ñu fàttali leen ni île boobu tey boo duggee gaal nag di ca dem daanaka fukki waxtu rek nga koy koy def fukki simili may jéggalu nga koy def diggam ak dëkk boobe ñu duppee Jakeen Wolof doxantu ci nature bi mel ni kuy sàkku ji ngelaw lu feex jaar ci diggante mangrove yi ngir mën a yegg fii ci Île de di bërëb bu féex lool te neex a nekk ngir fàtte say problème fi nag muñ yoxos yi ñu fiy lakk dina jafe lool couple bi ñu ngi jóge ba ci Petite code bi ñoom miin nañu lool Île de fii la daal euh, dañ koo bëgg wàcc suñu xol parce que fii nit ñi accueillant nañ excursion euh, gaal gi dugg ci biir bolon yi euh, dem ci yeneen il yi nekk ci wet bi comme Cachewan tout ça quoi. Île de avantage am mooy kenn dëkku fi île la boo xam ne ñaari village ko de ko moom. muy Diakeno euh, la ak Thiantène mais depuis cosaan il euh, la boo xam ne nit ñi dañuy ñëw di liggéey liggéey euh, ba ngoon ñëpp ñibbi waa Thiantène yi dañuy ñibbi seen dëkk waa Diakeno la fii ñibbi seen dëkk kenn mësu fi dëkk ba man ba ma fi ñëwee ma ne bon léegi il faut que ma créer fii campement parce que avantage yi mooy. dafa dafa dafa tranquille dafa amul amul bruit comme amul habitation kenn dëkku fi alors de euh, ensuite deuxième avantage bi mooy euh, àll bi c'est tu vois fii surtout la surtout bi dafa dem ba sës ki si ki mangrove bi surtout ak mangrove ak bolon donc lépp moo jaxa moo jaxasoo si euh, île bi de sort que moo mooy exception am mooy avantage am ci île bi nag benn campement rek moo fi nekk dingeen fi mën a def ay rawante gaal doxantu ci àll bi wala pour ñi gën a am fit mën ngeen def balade en pirogue ca bolong des crocodiles maanaam bërëb bu nga xamante ni di ngeen fa mën a seetaan ay jasit ci seen milieu naturel ay ballon boo ballon boo mooy bi nekk noonu juste à gauche ñu koy woowee ballon des crocodiles alors ci la ñuy yóbbu gaa ñi ñu dem xool leen ñu dem gis euh, bon bu ma géej gi fere. ñu dem xool jasit yi. voilà xool jasit yi mais dañuy si gaal bi la ñuy toog de toute façon <laughs> quand même <laughs> <laughs> am na ñoo xam ne dañ koy bëgg a jege am na ñoo xam ne dañ koy bëgg a séen rek waaye bëgguñu koo jege tout ça la voilà voilà. mais mais mais fii jasit yi dana war. <laughs> fi di xaar xaw ma lañ fiy xaar <laughs> laata mbas mi di door nag lu ëpp ci ñuy visiter Île de Gueye ay touristes yu jóge bitim réew lañu. tey touristes yi wàññeeku nañu bu baax te moo ne gént yi gën a neex mi ngi am ba léegi ca Île de Gueye. Chéri Diop euh, kii nag di Pape Samba nee na moom demul benn yoon ndax euh, jësit defulal moom nenn. mbokk yi foofu la ñu jeexalee xibaaru digg bëccëg bi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm di ko sàkku ci yéen